salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu daaru sunna ñu leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole defal jàmm sàmm ñu taar ñu dëgëral ñu dina ci saxal ci ak sunna ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di leen balaax di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal am ma vidéo bi ñu loxo te Sonko eh, di si wax toog ci kilifa ak murit gi. na ko yéeneen yaakaar àdduna ak alaxira àdduna rek ñoom mun ci tus nga ne alaxira yàlla ji nga xam ne yàlla nee na wal amru yawma izin lillah nga ne ñoom ngeen fa yaakaar subhaana rabbil ala donc li mu def nii moom moo ko tey ndax moom jàng na xam na moom xam na ne lii bokkaale ba rabbi subhaanahu wa taala moom mu nuur bokkaale ngir lan ngir bëgg li nga xam ne moom mooy nguur te loo muy bokkaale loolu si loxo borom bi subxanahu wa taala nekk yàlla nee na man maa joxe nguur maay xool ku ma neex ma jox ko nguur maay teddal ku ma soob moom maay toroxal ku ma soob borom subxanahu wa si loxo la nekk léegi soo bëgg nguur tax mu sukk ci kanamu mbindeef na ko yéen leen yaakaar àdduna ak kon kii daa war yàlla soo ko mii daa wor yàlla ndax borom bi subxanahu wa taala dañoo bind ngir ñu wéetal ko. wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbudun ibnu abbas ne illa an yuwaxidu lu ñu wéetal moo kon moomeelu borom bi subhaanahu wa taala mel ni joxe nguur te mooy tawxiid rububiya te yàlla moo ko mën mu ñëw taxaw ci kanam mbindeef dañ ko yeneen yaakaar àdduna ak alaxira mu nekk loo xam ne lu doy waar lu yéeme la kon nag ku war yàlla boo waree yeneenti yàlla bi du nu beet yaakaar yàlla dongu lañ ko war a def kon kooku nag bu fekkee ne yéen tamit wóolu ngeen ko ba jox ko seen dëkk gi bu leen woree bu leen bett de yàlla ne yéen ñi gëm yàlla ngalla waaye bu leen war yàlla di ko bokkaale bu leen war yeneen yi indi ay bidaa di fent boo ngeen ko defee da ngeen war ay seen kóolale fekk yéen xam ngeen bu baax kon mbokk yi yéen ñi di ŋàcc ŋàcc ci sonk naan ibaadu laa sunnit laa mbokk laa daa dëgg daa kasa daa kasa kii dëggul kii moom yàlla. donc tax ñu wax ki wum deggul waaw bu deggu won ci pass passam du taxaw naan ko yeneen yaakaar adna al akhirah kon li mom amna lu muy jangal lu bari hmm ay képp ku nur rek top ko ah nga jox ko séedee wota ko sa carte naa ko bëgg si leneen tamit na ki ay ki mom la sak fi fii man mom du mu nekk ci mo ma kay wote dal daal ndax yi bokkal ba subhanahu wa taala ha ci nur xam ba ko di bokkal kon ko ke wolu ko aw danger la hmm salaamaaleykum rahmatullah Daaru maa ngi leen di siyaare yi ñëpp aba jëmel yi ñu ma fekk sport bi maa ngi leen nuyu Badine maa ngi leen nuyu ñëpp baax ah, aba jëmel ah, man kay Sonko moom bet na ma de bett na ma trop Sonko man gis naa ñoo xam ne am na sama mbok yoo xamante ni een woon nañ ko mbaam bi di si ni ñoom seen jëmukaay doo doon ko téyi de waaw man am na group boo xamante nii niñ sonne woon si affaire sonk bi yëpp ñoom pour ñoom affaire yi affaire yi traité coono traité bu ñu duggoon ba génne si affaire par parloo moo taxoon ñu gën a téye sonk moom ba ñu duggaat si affaire yi ñu bëgg am président xam ne moom bu dikkee day nekk réew mi dong da koo ñor waaw réew dong da koo ñor ak diine moom dañ yaakaar na moom yu bëri dina ko dindi sax yaakaar googu la si gars yi amoon de moom de na ma de bett na ma trop nag politiciens yi daal dina naqaree xam moom. man gis naa ñu ko jege woon ña xam ne nañ ànd woon ak moom du côté yi de du comme nii de waaw te dañ ko naan xeexal te ñooñu dañoo amoon doole si moom lool donc dimbale côté bu nekk waaw te man ñoo xam naa seen position bu baax a baax ñoom doxuñ si affaire yi nii ñoom daanaka sunu lañ gën a yëngu si lañ gën a dox te man ñu mën a ñoom dañoo jaxasoo lool sax dañoo jaxasoo lool lool doy na war daal yàlla baax na Jegel jégal na yi ñëpp Sonko bay ko man rek ki defuma jaaroon pour mu am dara dina fa jaarat mu du fa am dara te bu ko woré ni man propagande rek la man ki day bokal ki mo fuma jaar do fa do fa amati dara inshallah allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlu tarasun di nuyu di len di di leen ci baalu àq yéen ñëpp ñi ma fekk ci bunt bi moo ji axil salafi ibrahima yéen ñëpp abu jamil maa ngi lay siyaare lu bëri alhamdulilah barakallah fiikum seen discussion yi macha allah gis nañ li moom ah alhamdulilah c'est très intéressant gis nañ aussi ah sonko mi nga xamante ni bett na tey ñëpp ah. waa Sénégal li ñu amoon si moom kóolute ah jàpp ko ak loxo seeni fukki baaraam ba mu dëgër alhamdulilah mais tey lii lañu injil ah donc ah dañuy sant yàlla rek xam ni naxaate moom ah, ku yàgg làqatu ci naan heure boobu mànjee rek feeñ mu ngi nii de Sénégal lii yëpp fi ne ah alhamdulilah mais dañuy sant yàlla rek <laughs> li yonente bi jàngale comme ñoom ñu ngi bokkaale li yonente bi jàngale c'est très simple saxaabe bi taxawoon ah, may bi saxaabe bi ni woon yonente bi ونلقى منك ما شاء الله وشئت بك يا نتبي تنتو قوم بار قال له لي قال صلى الله عليه وسلم لما قال رجل لما قال رجل ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني الله ندا قال ما شاء الله وحده دونك نيوم ها جاي سفيان كي دونك نيوم لي با نتو لب ياكار كو خامتني في اك فله donc sante yàlla rek sante yàlla rek ki nga yaakaar ndax moom comme ni ko saa waxoon rek ki nga yaakaar léegi moom nag heure ba su jotee ñëpp nar a jéggi dem siraat kooku nag su pëtëxee nag fan nga jëm ah barakallahu fiikum ya na yàlla defal jàmm ah sutura ñu arnu te musal ñu ci lii yi façon fi tan lii rek mun na indi fa safaan biir réew ci yàlla waay ngi jégg lu baax nag barakallahu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki daaru sunna maa ngi leen di yeen ñep seen tur ak seen sant di leen jox yeen ñep seen way ko ci audio bi mo wacce ni de mo moy audio bashir bashir de danaka man li man awma leneen luma ci tek quoi dama ko yexa jot nak dama yexa deglu dama yéex deglu dugg ci panel bi mais soo bi nga wax mom man awma leneen luma ci tek quoi awma leneen luma ci tek wax nga lepp mais aussi il faut comprendre une chose ne ni les sénégalais li moom moo leen di dundal sénégalais du wax dëgg te sénégalais bëggul ko wax dëgg donc genre Sonko yi moom moo leen neex quoi ku leen di nax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah gis nga diine yàlla ji loo ciy fekk muy dëgg ci yow de diine yàlla ji ak sunu yonent bii loo ciy woote na fekk muy dëgg billaay leneen loo ci rax yàlla ne la ca nga ci biti gis ngeen fi mu ne nii ay millions de personnes ñoo génn ci moom waaw ñu ko nawoon ñëpp ñëpp ñëpp parce que da woote loo xam ne nekkul ci moom yàlla ne ko fànk lii la nag ak noo mën a mel ci diine ji looy def nañ ci dëggu boo ci dëggu rek ba say ñëw yàlla na la faaj ci biti yëpp teg ci seen bët waaw yàlla yàlla gidd gidd ko waaw perte na ay militants yu baree baree bare ci waxam ji